FIDAK atum 2021 ëllëg biñ ko tëjee officiellement yenn ci institution yi rafetlu nañu seeni liggéey ba wees seeni njort bokk na ci gendarmerie ak ministère de l'urbanisme. waa LG yi gis foire les portes d'entrée l'intérieur et les abords de la foire yëpp ñu géré. ko di def ay rondes di def ay patrouilles à la grande satisfaction de toute la population noté wuñu fi benn cas d'agression ou en tout cas de trucs euh, contraires à, ce qu'on a voulu avoir comme résultat. Donc sur le plan sécuritaire, ça a été vraiment extraordinaire. Nous avons eu bi stand euh, au pavillon brun comme nous l'avons fait chaque année nous euh, présenter un produit le produit que nga bi gendarmerie présenté c'est ñetti axe la axe bu les simulateurs parce que dañu moto ak simulateur La population bi visiteur yi ñëw ak accaparé carrément beneen axe bi muy axe euh, la vitrine des chefs d'État et les les hauts commandants de gendarmerie Il tamit ñu def fa ay explications yu am doole yo xamné yi nit ñi parce que depuis l'indépendance euh, indépendance jusqu'à nos jours ñi commandé gendarmerie yëpp dañ leen Nous avons ñu jiital en tête les quatre présidents nous dañuy euh, le président de la République est le chef suprême des armées donc il fallait que nous nous disions que les photos ci photo yi ak explication les commandants de gendarmerie des des indépendances jusqu'à nos jours bi ñu de ci tableau nous avons indiwaat beneen tableau muy les euh, l'organisation des gendarmeries d'Afrique muy gendarmerie qui ont en commun la langue française parmi lesquelles bien sûr la France qui était membre partenaire muy euh, organisation bu am doole les raisons. bi raison tableau mujj bi avant-dernier bi du muy euh, la gendarmerie à travers les âges depuis les latjor les Ndiadjandia et autres en passant par le général Youssouf Bey et autres suñu une histoire Nous ñu visité euh, les gens qui étaient venus nous voir à leur grande satisfaction parce que jëlee dit, ci xam-xam bu bëree bëree bëri gendarmerie mooy lan fan la commencé du début 1850 jusqu'en 2001 ñu teg tableau bobo. ñu jël beneen tableau muy tableau PNLC PNLC muy la plateforme numérique ku ñu un sa portable dan la ñuy defee enquêtes yi ak fait yëpp ñu tegal leen ko aussi ñoom tam joué ci seen partition bu Euh, dañuy jàpp ni que bilan bu globalement positif en tout cas ñun si li ñu doon liggéey ci wàllum ministère urbanisme logement ak euh, hygiène publique parce que ñëwoon nañu fi am fi stand euh, defoon benn partie boo xam ne programme cent mille logements lañ ci bëggoon jàppale Sénégalais yi inscrit ci plateforme bi ak bëgg ay information ci cent programme cent mille yi ñooñu am nañu luñ ci jot nit yu bëri ñëw nañ ci stand bi loolu moo leen taxoon a jóg donc euh, côté boobu objectif ñu doon poursuivre atteindre nañ ko ci euh, direction cadre de vie aussi a ngi fi woon ñoom xam nga ñooy gérer peut-être su fekkee aménagement espace vert yeeg yooyu et puis jàppale sénégalais désencombrement yi pour rafetal réew mi ñooñu tamit am nañu occasion waxtaan ak sénégalais yi won leen li ñuy liggéey ak UCG euh, ñëw nañ fi. Euh, ci pavillon bi si euh, seen stand si euh, ministère bi exposé tamit ñoom li ñuy def keneen ki ñu fi gis si suñu côté ministère mooy SAFRI ak FHS mooy kuréel yi gouvernement bi tek pour jàppale sénégalais yi ak entreprise sénégalaises yi bëgg liggéey ci wàllum logement loolu yëpp am nañu occasion woone li ñuy liggéey nit ñi gis ko ñu am visiteurs yu bëri ci côté boobu. bu dee institution yi mbégte lañ ci am. exposant yi jaay kat yi ñom ak ñeneen ñi yongu ci yeneen activité seen i xalaat wuute na. am ay difficulté yo xam vraiment képp kuy exposant bu la neubul warna warna leer ne difficulté yoyu lu leer la quoi wa difficulté yi bari na difficulté yu ci bari itam ci direction foire la ci direction foire bi la parce que itam nit ñi bo leen jaay ay stand yu ser stand yo xam ya yaa ngi leen ko jaay ay 725 800000 vingt million deux ñu jënd ko stand ba paré da nga leen ni accompagner ci seen xalaat. xam nga parce que ñoom boo leen xasee jaay yow léegi ñoom ñooy priorité yi yow ñoom nga war di déglu ci organisation bi parce que fii boo fi duggee ci foire bi danga xam ne organisation bi fi daan am bu njëkk ak léegi c'est diamétralement opposé tey ku ma newoon tey dinaa ren ren dinaa fi liggéeyaat sax duma ko gëm parce que ni mu meloon daaw melaatu ko ren parce que métti na méttiwaay boo xamante ne sax ba ci porte bi sax ñun bu ñuy génn bu ñuy dugg sax dañ ñee boo leen daggee ticket da ngeen ne daggaat man daaw sax ba benn maire ba mu jëndee bagage ngir setal suñu der ak suñu borom pus-pus yi ak dóoruwaar gi ñuy def nii ngir loo xamante ne la tey xam nga setal suñu der parce que maire dafa fàtte woon fii sama sario bi ay bagages am mais dama ko jël xaw ma sax lu ne ci biir mbuus bi sac bi xaw ma lu ci ne dama ko jël yóbbu ko sonorisation pour setal ngir ñun suñu borom pus-pus yi parce que ñun ci parking la ñuy toog jàpp suñu ñaambur bu nit ñëwee gaare otoom dañuy ñëw jël bagage bi teg ko suñu sario yóbbul ko ko. gaay nak yeen tay nga tomb ci ay policier yu bax yeen tay nga tomb ci ñoom dañ lay fekk ci parking nga tok sax ñu génné la né la dama nga togi fëlé bagage ñëwé ñi ki la sonal la ko xatal la ngir satal suñu der quoi mais doona lo xamné mom ren mom met yombul quoi met na lol ñak xumbuté bi tamit bokk na ci li ñan ñi di rafetlu ñeneen ñi di konya ñaawlu ndax rek lu mu soppi xar kanam fi dak bi bu dé gàllankoor am na kay visiteur yu bari nga xamné yi song nañ ñu te xamu ñu ñu leen doon def suñu stand on a ravi la vedette

Euh, nous ñu ko organiser ak que peut-être euh, c'est très positif parce que gis une amélioration yu fi am changement yu bees yu am par rapport à ce ñu ko organiser avant désordre bi doon un ci foire beeg yooyu man personnellement ren doxantu naa ci euh, pavillon mais gis avons am na lu ci lu bu dañul complètement aussi wàññeeku kuna pollution sonore bi doon metti bi doon am biir foire bi nga xamné bo boo bo waxtani waxtaanee ko ko dégg ren gis nañu que lolu amu fi euh, donc lolu yëpp day wone am na ay progrès yu ñu def ci côté yoy jéego yu ñu ñu ñaan rek peut-être ñi yor responsable foire ñu continuer non entreprise fi daan ñëw société fi daan ñëw di def ay spectacle di indi artiste yi nga xamné ne ay artistes comédiens lañ ay way kat ay théâtre kat ay fête kat ñëpp ñuy neexal foire bi ñu leen di fay ak seen ay propres moyens légui dem nañ ba loolu amatul parce que dañu interdit légui musique te tey am ay entreprise yo xam buñu misigul buñu deful promo seen liggéey buñ ko doo ko sentir ci foire bi ci entreprise yoy noonu tay ñom fu foire bi egg ñom ñoo fa yóbbu kon lool tay war nañ ko xolaat bu baax. exposant yi di ñaax kilifa foire rek ñu soppi seen i doxalin ngir rek ku nekk mën ci gis boppam. waaw si wàllum organisation bi ci directeur bi laa koy jiitoo. na may borom pus-pus yi jaamu xam nga ma ñu taw fexa tanchir ñu liggéey ci jaam ak salam parce que ñun ñu lu bon ñu alu ñu jàmbur. Euh, leneen li ñu mëna ñaan moy peut-être ñi di exposer euh, comme ñun niñ fi ñëw won ñu gën leen jappalé ci yenn commodité yi nga xamné facilité ngay am pour côté liggéey bi nga bëgg def mu gëna yomb parce que en général stand bi lañu jox euh nga fay ci xaalisu bari exceptement pour espace bi mais aménagement ak yenen yépp nit ñi gérer sen bop Euh, li ñu soxla yëpp ci wàllum jumtukaay duñ ko joxe yow yaay obligé encore dem di indi say matériel wala di loue di def yeneen euh, possible euh, di xool noo def daal ba mën a amee aménager sa espace ba mu rafet c'est vrai que suñu wàll la côté boobu mais jàppale bi foofu daal dama jàpp ne que am na lu ci des loo xam ne mënoon na gën a yem. directeur bi itam vraiment biñ ko fi nommé yàggul mais itam bu fekkente ni bëgg na loo xam ne. liggéeyal bu fekké dañ ko fi nommé pour muy wala muy président de la république wala muy liggéey ku doon déglu exposant yi ñu wax ko seen li metti mu def ko expérience bopam wala li man rek mako man fermé wu warna warna nit ñepp ñew di wax seen xalaat quoi parce que itam li koy wax du du luy luy foire ginnaaw la ñun luy foire kanam ci la ñew commencé foire na mais buñ on bay ba tay itim ñuy def réclamation dafa dafa fekk ne moom ni muy doxee ak yeneen directeurs yi fi jaar am na différence quoi. FIDAK édition 2021 bu ubbi juróom benni fan ci weeru décembre waroon tëj ñaar fukki fan ci weeru décembre yokk nañ ci ay fan ngir rek fexe ba jaaykat yi mën a jaay seeni marchandise ci feet yi yokk bi ñu yokk foire bi nag taxul nit ñi bëri ci ëllëgu dogal bi